ku xam intercoalition bi xam ni lu nu wax rek dañ koy jëfe mënuñu tey jii nii sénégalais yi nekk ci guuta inondation bi mel ne tulle ak male ci biir réew mi ku nekk nekk ci metti di nga xam ni kenn xamul nu mu tey ñu ciy profité di leen masawu coono ci metti yooyu ku nekk gis dund gi ni mu chéré ni Sénégalais yi di souffrir goudi ak bëccëg pour mën assurer le minimum ñu naan ñoo ngi dugg ci institution bi nga xam ni leer nañu ni amul benn njariñ ci askan fii ku fi mën a wax lan mooy liggéeyu HCCT ku fi mën wax lan lañu mën a retenir ci seen bilan ci biir Sénégal amul à part salaire bi ñuy jot 4 yi ñu leen di jox jëlee ko ci budget wu état muy ay milliards yu bare yi nga xam ni mën nañ ko jël yóbbu ko foofu ñun nag nekkuñu ci caaxaan boobu intercoalition bi nekkul ci caaxaan boobu wax nañ leen lu leer ñu leen koy répété waat population sénégalaise bu ñu yóbbee intercoalition bi ci bopp réew mi li war ci réforme dañ koy engage aussitôt te sénégalais yi daanu xam ni seen yitte mooy suñu yitte. foo bi dina fi jeex kaf bi dina fi jeex yàq bi dina jeex ci nguur gi ak ci jumtuwaayu état bi pasar pasare bi dina jeex luubal bi dina jeex lu jub rek mo fi am te lu ñu yëkëti rek day doon njariñu sénégalais motax ginnaw ñun ñëpp d'accord nañu ci li baxul sénégalais d'accord ni baxul intercoalition bi à l'unanimité je répète intercoalition à l'unanimité retenir que nous participer à CCT. intercoalition à l'unanimité retenir retenir retenir que pour nous y installer nationale nous contrôlons contrôler nationale dans une proposition de loi

majorité moy 83 députés opposition la wax ñi opposition xagn Macky Sall majorité ndax Macky Sall nee 82 la am waye nim doon bëgg def Touba comme ce tuwul xaw ma fayeen fu ko def mais li am solo rek moy fexé na ba tapalé ba ne am na 82 députés mais tay 83 députés yi nga opposition am nañ ko tay moy majorité kon Macky Sall amul majorité Sénégal lolu motax askan woowu xamal nañu dañu am ay jafé jafe yoo xam bëgg nañ ngeen dañuy waxal motax biñu bi mbënn am askan yu sonn ñu gis am ay nit ci ñuy seen mbokk ñu ñuy participer ay milliards millions da koy coûter Sénégal élection euh, au conseil bi boo jëlee beneen euh, conseil économique bi Idriss Seck nekk milliards 400 et quelque ñoom ñaar boo mu nekk 16 milliards 91 millions 40 284 francs mom la ñaar yoy di bolé ay ay député ñoko ñoo ensemble national assemblée nationale Déthié wax na ko bu fekkenté yàlla dogal dem nañ ensemble national té ñi nga xamanténi moy ñenen suñu yenen collègues yi nga xamanténi fal na neen muy ay député ñu leen di tàllal loxo di leen wo parce que procès askan wi kenn wuru ko trahir parce que bu fekkonté dañu dem and ak Macky Sall duñu am lu ñu am comme askan wi ci bop mo taxoon ñu am li ñam ñom ñoom ñi ngi leen di wo ñu ñëw rancé wu ànd ak ñun ngir intérêt peuple bi ngir que li nga xam mooy loi yu bon yi ak li nga xam mooy soxla askan wi ñu mën ko jàllale. kon duñu participer ci li nga xamante mooy élection yi. La non-participation est comme l'a si bien précisé Cheikh Tidiane le président Cheikh Tidiane il ne s'agit pas de boycotter, mais il s'agit simplement de se conformer à la volonté du peuple, de lutter contre la gabégie. Ce sont des institutions qui sont là pour planquer une clientèle politique. À ces champs à qui le président de la République a promis d'intégrer le Haut Conseil des collectivités territoriales, nous leur disons également que cette institution sera dissoute. Inch'Allah. Donc, tout ce qu'il va leur promettre. Concernant cette institution, à ces gens-là, nous leur disons que c'est ça le leur, puisque c'est une institution qui sera dissoute, qui ne va pas durer, Inch'Allah. Donc cela ne sert absolument rien du tout d'essayer d'y aller. Refusez, suivez la volonté du peuple. Restez en, soyez cohérents. Le peuple n'en veut pas. Donc, soyez avec le peuple. Soyez pas avec le régime en place, puisque ce régime n'est pas avec le peuple. Ce régime défend les intérêts des Occidentaux. Et ça, on le voit depuis qu'il est là, depuis 2012, à travers les lois qu'ils ont votées, à travers les infrastructures qu'ils ont, construites, des infrastructures qui ont été construites par des sociétés étrangères, et ce sont ces mêmes sociétés qui rapatrient leurs bénéfices. Comment peut-on dire qu'un tel régime défend les intérêts de notre pays Donc, il faudrait à un moment donné que vous soyez conscient.